mais pour de la république. Mhm. bi nga xamante ne. dañuy dañu koy topp ngir haute trahison. Mhm. Euh, waaw xam nga xam nga Vito euh, ak président de la république. waaw man bala may ñëw sax ci président de la république. nañ mhm. ñëw ci Djibril Ngom d' abord. parce que Djibril Ngom dafa bokkoon ci ab coalition. ñu wóolu la jox la confiance. jox la seeni liste nga daw ak liste ya mër. ñu lay woo mënuñu laa jot. bi information bi jàllee ñëpp xam nañ ni Matam fiefu président de la république mu am fa allié bu dëgër bu ñu wax Farba ñu tudd ko ci mbir mi. Mhm. waaye nit ñi dañ doon dañ doon teewul nit ñi ñu ngi doon. Farba moom turam ma daaneel c'est important mhm. boobu teewul nit ñi ñu ngi doon douter. ñu ngi doon maanaam ñu ngi leen doon jox confiance ne ah xëy na waa dafa am empêchement. Mhm. waaye bi mu leeree ni waa ji ci boppam daw naag liste yi. ñu koy wër jotuñu ko ba Sénégal yëpp am ci lu leer. ñuy wax naan dañ koy porter plainte tam duñ ko porter plainte. ñu koy ñu koy gis ay photo Jibril Ngom toog ak président de la république mu recevoir ko. ci place boo xam ni maanaam mooy li réew mi gën a fonk tey ci wàllu république muy palais de la république. ñu gis drapeau Sénégal muy folote ci ginnaaw. loolu képp ku gëm moral gëm éthique gëm ngor. gëm ni jullit nga di nga dugg bàmmeel doo ko rafetlu yaa ngi dégg mu nekk nag loo xam ne ci république lañ nekk mhm. yeewi askan wi liñ def ànd naa ci mooy Jibril Ngom ger nañ ko geruñu ko man munuma cee wax parce que teguma ci sama bët waaye li wér li wér jox nañ ko xaalis laa bëgg a wax wala joxuñu ko man munuma cee sori. moom nee na loolu du woon enveloppe. waaw donte am nañu photo enveloppe bi. muy ñëw la ko indaale. am na ñoo xam ni photo nañ benn enveloppe. Mhm. wane ni xaalis a ngi ci. Mhm. waaye loolu ña ko wax ñoom la engagé. man en tant que imam am na loo xam ne du ci dugg. Mhm. li ma mën a dugg daal mooy Jibril Ngom moom nga xam ne ay fee nekkoon na yeewi askan wi xëy dem ba élection yi ñëw. mu daw ak liste yi ñu xëy gis ko Macky Sall recevoir ko léegi nag nañ ubbi ab enquête ci loolu moo tax pétition yi nga xam ni yeewi askan wi lancé nañ ko man imam drame maa ngi woo sénégal yi yëpp di leen lancer un appel solennel na appel boo xam dama ko teg ci moral teg ko ci éthique pour pétition yi Sénégalais yëpp signé ko signé ko pour wane ni réew mi mën nañoo toloree lu nekk waaye réew mi am na loo xam ni képp ku ko fi bëgg a jële dañoo jàpp ne haute trahison nga def mooy ngor parce que réew mi dafa am dëkk bu tudd Gorée te boobu république ñëwagul ci réew mi mhm. réew mi am na dëkk bu tudd Ngor mu ngi fii suñ ginnaaw te boobu république ñëwagul ci réew mi am xaar yàlla am xaar yàlla Sénégal du réew moo xam ni da war a yor xaalis rek ku la neex jënd c'est très important mhm. euh, mon frère mhm. réew mi waru ñëw àgg ci dama yor sama pilim wala man damaa am alal rek ku mu bëgg jënd jënd sa ngor réew mi il faut ñu ñu ñu parce que kenn mënta émerger réew sans nga nga nga bàyyi xel valeurs yi valeurs yooyu nga xam ne tey réew mi daf ko war a ñàkk nag bokk na ci ku bokk ci benn camp ba ñëpp xam ko mu xëy sàq daw ak listub ñooña xëy ñu gis ko ci pale bi waaw président moom est-ce que est-ce que président yëgoon na li Jibril def sax moom est-ce que bu doon dañ ko indil Jibril nii rek présenté ko comme un sénégalais lambda bu ko bëgg a gis mu mais mais mu recevoir ko <laughs> ndax yëgoon na ko xam nga loolu. ku xam président de la République une question que je me pose. waaw non def xam naa ni question bi nga posé mooy question njàqare. yaa ngi dégg. non bu doon président xam na bu baax ne. Djibril def na lii nii. parce que tam tam ñu présenté président ne Djibril c'est un sénégalais qui veut. non loolu mënul nekk président ko. mon frère président moo ëpp information ci Sénégal. Sénégal président am na ñoo xam ne dañ leen di fay uniquement pour ñu koy jox information. président lii ñuy def sax man ak yow. am na nu muy demee yëg na ko. parce que dañ koo jox réew mi boole ko ñu koy accompagner ci wàllu information kon waxi président yéeg na ko mu yéegu ko loolu du débat président moo la ko gën a yéeg ba yéeg sax loo xam ne ñun yéeguñu ko yaa ngi dégg fan la ñu xam nga fi ñu toll mooy li ñu bëgg a jaay sénégalais yi la sénégale yi la ko seen suñu président de la république sur le plan de la communication mm. kon c'est quel message bi nga xamante ne président bi moom la bëgg fair faire passer nit ñi message bi ñu bëgg a jàllale mooy ngor amatul ci réew mi message bi Jibril Ngom di wane mooy dignité amatul ci réew mi gor ñëpp mën nañ leen a jënd parce que politiciens yi dañoo gëm ni nit ñëpp mën nañ leen a jënd ñoom loolu li ëpp ci ñoom loolu lañ gëm rawatina euh, ñi nekk ci système bi. Mm-hmm. lii dëgg nga xam ne daal man ci laay wax man du ma dugg ci ay détails essentiel laay wax ñun kenn mm-hmm. duñu divertir. Mm-hmm. pétition bi daal sénégalais yi. yi nekk ci diaspora bi ak sénégalais yi nekk ci biir réew mi fu ab nekk. tey ji yell na ci yow nga signé ko même ci biir APR am na ay gor gor yu fa nekk yoo xam ne bëgguñu lu bon ñooñu maa ngi leen di woo ñu signé pétition bi pour xamal Macky Sall ni ko réew mi ngor moo fi dox réew mi diina jógagu fi réew mi euh, jom daf fee des kersa daf fee des kon man loolu laa am ci lu may wax di wax ni euh, wax ju bari ji ak coow li warul mën a tere kenn ñu def li ñu war a def wala ñu fi ñu war a jëm maanaam bu ñu divertir mhm. bu ñu divertir lii xam nga yow tey jii ku xam président doole ji mu am mhm. ñuy waaja a porte plainte nit nga xo woo ko recevoir ko mhm. loolu li muy tekki mooy kii kat bu leen ko laal sama nit la junj la loolu junj la ni parce que tey yow boo toogoon a président de jox beneen dayoo yow man mi su ma toogoon a président de ci wàllu àdduna donte bëggumaa toog ak moom da lay jox beneen dayoo kon buñ toogee ak Jibril Ngom ñu ngi wan sénégalais yi ni Jibril Ngom li mu def dara nekku ci. Jibril moom. waaw ak euh, réew mi fu ñu toll nii. parce mm-hmm. que réew mi metti na. nit ñi soxla na nañu koppar soxla nañu yenn nii c'est quoi le message que tu lances que vous lancez sax laay wax ah Jibril ak ñi nga xamante ne ay semblable lañ. Mm-hmm. toog nañu téye loo xamante ne mën na daaneel réew wala mën na yàq deru réew. Mm-hmm. di xaar juste ñu jox la koppar pour nga jaay loolu. mooy la sëriñ kër si radiyallahu anhu waxoon. sëñ Babacar Sy bu njaboot gi bokk na ci yim leen daan dénk mooy gor du tiit ba fen gor du tiit ba fen gor du tiit ba fen ñu ne gor du ñàkk ba ñànki yaa ngi dégg gor du ñàkk ba ñànki réew mi ci amul ci ku mu neex moo frère réew mi ci ñëpp la mett di fi ñëpp a sonn fi mu ne gor ñëpp ñu ngi yuuxu waaye nag wurul tax ñu saalit maanaam réew mi daarin yi yokku na yaa ngi gis tey jii mburu mi ñuy wax ni yokk nañ ko te buñ jógee ci mburu mi ci ceeb bi lañ jëm parce que réew mi ñi ko yor amatuñu solution loolu mooy dëgg loolu laa bëgg ñu daanale dinañ ci ñëw mais juste message message bi may lancé daal di wax ni Sénégal fi la Cheikh Anta Diop nekkoon mhm. ba tey ji turam nit ñi di ko tudd mhm. di ko fàttaliku ndax ay mbaax mbaax yu mu fi defoon mhm. Mamadou Dia ci réew mi la nekkoon ba tey ñu ngi koy tudd ak ndax courage am ak taxawaayam réew mi ñu amoon ku ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul mhm. mu ñëw wane ni nit danga ngaa war a bañ booy dee ci àll na la gaynde rey Serigne Touba li ñuy jàng ci moom du lenn lu dul bañ mhm. loolu il mu leer te daf ko bind leneen lu la waay wax mhm. lu dul lii ci boppam la nekk Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul dafa bañ bañ génne ko réew mi résistance pacifique la def Cheikh Cheikh Alhaaji Omar Fuutiyu dafa def résistance taxaw jaamaarloog tubaab bi Seydi Ji Malick résister tamit ci xam-xam kon réew mi dañoo mus a am ñuy bañ yaa ngi dégg Seydi Ji Malick ba mu naan naouzu billahi min charril kuffaari wa min charri nasara wa min charri salatini wa min wazirin wa jinnin suma zi xeqadin fammin wa aynin wa inin wa shayatini loola da koo bind bàyyi ko fi Serigne Touba ba muy wax naan sababu xaybati anna laa araada an akuna araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian lil qawmi wa an akuna xaadiman li daw mi lii ay déclaration la yoo xam ne mag ñi ñoo ko fi bay man mi sama maam bu ñuy wax Mamadou Lamine Dramé dafa bañ ba daanu ci résistance yaa ngi dégg kon réew mi naka jekk dafa mus a am taxaw di bañ injustice di bañ ku leen not di bañ lu ñaaw te ñooñu nag seen i sët a ngi fi waaye nag réew mi am na fi ñoo xam ni seen maam yi ñoo doon jaay tubaab bi te ñooñu ba tey seeni i sët a ngi fi moo tax ñaari kuréel yi ñoo fi nekk xisbullah ak xisbu seytaan mhm. képp ku bëgg lu baax ñëwal fi valeurs yi nekk boo gisee man ku mel ni président Ousmane Sonko joxuma cent franc te yaakaaruma ko ci moom mais li tax ma koy bàyyi xel di bàyyi xel discours am mooy ay valeur mhm. lay incarné moral lay incarné mhm. anti système lay incarné mais du leneen mais buñ gisoon mu mel ni ñi fi nekk dañuy tem toog sunu daara yem ci sunu alquran waaye nag indiwaat na espoir yaa ngi dégg ñëw beesalaat politique bi changé waat ko wane ni politique du caagir lu ñu lay jox nga def sa poos mhm. mais politique dañu jaamu yàlla la mhm. politique mooy tabax réew mi mhm. tabax pénc mi te loolu rek mooy diine comme wax nga espoir comme wax nga espoir ah. rek euh, mooy peut-être espoir la nañ ko bàyyi ci non la loolu loolu moo tax su ma gisee ñi nga xam ne dañuy toog ci plateau yi ci wàllu Vito di ko attaqué bëgg bëgg bëgg bëgg gëmloo indiwaat beneen xar kanam. Mhm. bu bokk teg bi Ousmane Sonko am. Mhm. damay xam da ngeen damay wax ne dañuy perte seen temps. Mhm. parce que discours am tey. dugg na daaneel c'est important. est-ce que ñoom tamit newuñ ci seen rôle. waaw mais nit war ngaa man tey sama rôle laa nekk man ànduma ak Macky Sall. yaa ngi dégg bu dee bu dee tamit moom tamit buy. foofu laay ñëw mais nag nit waru nit nit nit. man Ousmane Sonko jaralu ma fen tey. lu ma ko bëgg-bëgg jaralu ma fen maanaam ngor gi ma am ba jaralu ma fen ñoom war nañoo am ngor googu Macky Sall bañ leen a jaral fen maanaam kan moo la war a jaral fen waaw ça ça parce que jullit du fen xam nga fen déedéet far warul fak far ak far dara nekku ci kenn terewul kenn nga far mhm. waaye li ñu bañ mooy par parloo mhm. yaa ngi dégg par parloo nag moo ci bari da indi gis koo xam ne day ñëw toog ci plateau uniquement li koy sant mooy ŋàññil Ousmane Sonko attaqué ko mhm. wax ko lu bon mais politique boobu nag moo war a jóg ci réew mi boobu lañ wax génération bii loolu la ñuy xeex pour jëlee ko ci réew mi wane ni réew mi kenn ku ci nekk loo fi nekk compétence moo la ko war a jox loo fi nekk sa engagement moo la ko war a jox waaye nit warut tëdd ci ay kilimam euh, ay nit weer wi dee ñu jox ko salaire te defalul dara réew mi. président de la république mu ngi wax naan euh, recrutement yi nga xam ne. Mhm. dafa dugg ci fonction publique. Mhm. man damay wax léeg-léeg ma ne Macky Sall est am na maanaam Macky Sall bi ñu xamoon ñun ak Macky Sall bi est-ce benn la. Macky Sall parcours am dafa riche loo ko mën a waxal. jaar na ci ay poste yu bëree bëri. non jàmbaar moom du ma ni jàmbaar la. Mhm. man jàmbaar la ci parcours. waaw parcours taxul nga nekk jàmbaar. parcours gi nga wax rek laa la. waaw moom am na jaar jaar. Mhm. xam nga am na jaar jaar ak. jàmbaar la du benn jaar jaar bu rafet léegi. jaar bu rafet am na jaar jaar. c' très important ak jaar jaar bu rafet du <laughs> jaar jaar bu rafet mooy boo nee cinq ans ngay def nga def mhm. cinq ans. ngi dégg am na parcours la mooy am na fu mu jaar. ba nekk président de la république kon xam na état loo mën a wax ndax indi na nag lam ñu doon jaay loolu tey ñëpp xam nañu lam ñu doon jaay indiwu ko mhm. lam ñu doon jaay mooy rupture mhm. lim ñu doon jaay mooy bon gouvernance mhm. loolu tey amatul li ma bëgg a wax mooy ñi nga xam ne dañuy recruter ay sénégal Sénégalais yow wu ñu toog fi ñu war a toog loolu damay wax ni ñëpp war a jóg dénoncé ko ñun imaam yi nag ak nitu diine yi képp ku ñu gëm loon dañoo war a génn ñun ci politique bi bàyyi ko politiciens yi xamoo diine loolu c'est très important. Mhm. parce que yonent bi salaay sallam. Mhm. mi tax ñu bind jaam da doon politique. Mhm. yaa ngi dégg. yonent bi beneen débat. damay daaneel rek parce que man damay ramasser rek. actualité bi ah, yeneentu bi salaay sallam. chef de combat la woon chef de guerre la woon. jiite jumaa ji di jiite jàkke yi. di dox ci social. islam diine la joo xam looloo ko tax a jóg diine yëpp li leen tax a jóg mooy defar société. kon sëriñ si tey liy dox ci réew mi. ñoo ci war a jiitu pour di ci àddu. projet de loi bi nga xam ne ñu foofu laay daaneele ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy waaj a yóbbu mm-hmm. xalifa généraux yëpp tey maa ngi leen di woo ñu seen porte parole yi génn def ay déclaration mm-hmm. accompagner projet de loi bi wala ni projet de loi bi bu fi Serigne Touba nekkoon da koy accompagner mm-hmm. bu fi Alaaji Malick nekkoon da koy accompagner bu fi Cheikh Ibrahima Niass nekkoon da koy accompagner kon ànd sàmm jikko yi waruñoo wéet ci xeex bi donte nag alhamdulilah wéetuñu ci kilifa diine yëpp signé nañ waaye dañ ko waroon a booleeg nag ay discours mu gën a projet de loi bi ñu yóbbul ko Moustapha Niass ba pare di rafet njort ci moom ni dina ci taxaw moom Macky Sall pour ñu jàllale ko ci assemblée nationale projet de loi bi sax la daanale proposition de loi sax la proposition de loi sax moom la daanale hmm. waaye juste tamit